société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may seen revue de dal na ci kaw Maimouna Ndour Faye Vox Populi xëy dellu soir ci Maimouna Ndour Faye mi nga xam ne rek xaw tuut mu ñàkk ba kanam ginnaaw ab agression boo xam ne rek amal nañ ko jëmale ko ci kawam yéenekaay bi ne agresseur bi ñetti jam-jam la ko jam ci buntu këram ginnaaw ab émission boo xam ne rek doon na ko amal séq ko kii di Farba Ngom Sud Quotidien dellu soir ci boobee agression bu doy waar bi ñu amal amal jëmale ko ci kaw taskatu xibaar bi di Maimouna Ndour Faye mi nga xam ne rek mooy njiital 7TV yéene kaay bi ne président Macky Sall kay génn na ci pat gi mu nekkoon ma ngay àddu ci liberté de la presse ak droit fondamental yi nga xam ne rek kenn ku nekk war na cee sàmmonteel ba daal di protéger nag ñii di way taskatu xibaar yi waa CDEPS di ko feelu naka noonu way politique yi ñëpp daal di jug joxante loxo organisation yi défendre wàllum ki lu mu ci mënti doon Maimouna Ndour Faye mii na ni alhamdulilah ndax xaw tuut mu ñàkk ba kanam Ismaïla Diagne di imaamub quartier boobee nag nga xam ne fa lañ ko agressé nag di dellu suwaat ci ñàkkum kaaraange gi nga xam ne rek moom la ñuy dundee saay su nekk ci biir yëglekaay bi ma ngay xam ne ni ci contexte bi ñu nekk nag ci dirub benn weer nag ñeenti agression lim nañ ko ci seenub quartier boobee la barbarie face à Maimouna Ndour fay loolee la yéenekaay bi di l'Observateur xëy fësal ci xëtam bu njëkk ginnaaw gaañu gaañu yu metti yoo xam ne rek am na ko moom directrice bu set TV ndax ñetti jam-jam yoo xam ne moom la ko agresseur bi jam ginnaaw gi muy sàkkoo ab taxi bu ko yóbbu nag ndax deret ju bëri joo xam ne rek moom la doon génnee ñu bëri nag génn ñoom itam di ñaaw lu jëf ju ñu mel sûreté urbaine jamono ji nag moom moo gàlloo enquête bi fas yéenee topp nag ki def jëf ju ñaaw joojee jëf joo xam ne rek kenn rafetlu ko ci yëglekaay bi di l'enquête patron bu set TV nag na chance bu rëy ginnaaw jam-jam yu bëri yoo xam ne rek moom la ko agresseur bi jam enquête yëglekaay ne fi mu toll nii nag waa section de recherche bu Colobane nag ña ngay jéem a def seen kéem kàttan ngir teg loxo defkatu ñaawteef boobee nag moom soxna a Ndour Faye nag daat nañu koy déglu ginnaaw ab transfusion sangin bu ñu ko defal nag mu dib jàmbaaru fàkk tëdd Maymuna Ndour Faye ginnaaw agression bi nga xam ne rek moom la ñu amal jëmale ko ci kawam niki démb réaction yi moom mi ngi bàyyee ko fu nekk moo xam ci way taskatu xibaar yi nga xam ne rek ñoom ñëpp jug nañu taxaw daal di amal ab mobilisation li ñuy sàkku jamono ji moo di justice mu daal di def liggéeyam nag le quotidien le quotidien daal di dellu soir ci soxna Maymuna Ndour Faye mii nga xam ne rek weetul benn yoon ci jëf ju ñaaw ji nga xam ne rek amal nañ ko jëmale ko ci kawam waa IPF ña ngay ñaaw lu mbir yeeg ni mu demee président de la république Macky Sall di sàkku nag ñu daal di protéger lu jëm ci wàllu liberté de la presse élimaanu jëwriñ ñi di Amadou Ba daal di koy feelu nag ne ñi def jëf ji daal faaw rek yoon def ci liggéeyam ngir mën leen a teg loxo ndax lu ñu mel nag xel mënee su ko nangu te jëf ju ñaaw la ci yëglekaay bi di la Soleil njiitu réew mi daal di ñaaw lu fitna yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal ci réew Sénégal ba noppi sàkku yoon mu daal di caa amal ab liggéey bu am solo politique bi monde média bi ñoom itam ñoom ñëpp daal di jug taxaw nag di ñaaw lu ñàkkum kaaraange gi nga xam ne rek moom la taskatu xibaar yi di dundee fii ci réew Sénégal te loolee nag faaw ñu daal di caa jël ay matukaay Maïmouna Ndour Faye nag mi ngi ci hors de danger alhamdulilah loolee la yëglekaay bi daal di xamle enquête bi nag ñu ngi koy wéyal ci libération agresseur boobee nag ñetti jam-jami paaka moom la daal di jam nag ki nga xam ne moo di patron bu set TV ginnaaw bi mu defee lu nu mel nag dafa jël saakub Maïmouna Ndour Faye nag daal di daw ak moom yulli lépp lu ca nekkoon yéenekaay bi ne fi toll ni nag waa gendarmerie daal dinañuy teggat gët lii nga xam ne rek moo di ay pièces d'identité ma waaye nag moo xam taskatu xibaar yi waaye politique yi ak waa société civile bi nag ñoom ñëpp nag jug nañu taxaw ne lii moom faaw ñu daal di koy dakkal ci réewu Sénégal ndax fitna gi fi mu toll nii nag mi ngi gën di jéggi dayoo te buñ ci waxul nag lii raam ci ñag bi la jëm Barthélemy Diaz di xam ne ci biir yëglekaay bi nag na jarul ñuy sonn ndax ñëpp xam nañu nag fan la cong gi bàyyeekoo yër leen bi la yëglekaay di libération ñu jeexale yëglekaay yi ak wàllu tàggat yaram réew mi sport ma ngay àddu jëmale nag